Bébé eh Ama Boy Diène daw nañu daje. ah dawaat nañu daje. dawaat nañu daje. taxul mu bàyyi eh Bébé Ama Boy Diène. jàpp na ca tukki garaba. ëñ na ko dal na daan na ko. daan na ko.